solos waxtaan wi tey mën nañ ko tuddee peut ab lël bu ndaw boo xamee ne euh, je parle en présence du directeur hein monsieur Kanté qui en charge de euh, moom moo yor <laughs> mbirum lépp luy euh, topp saytu li xam ne moom mooy bonne gouvernance ni muy doxee ci réew mi lii fii nag dafa nekk loo xam ne Euh, maanaam jumtukaay la bu ñu wax mayeb boo xam ne d'ailleurs état africain yi ñi ci ëpp ah, du ñëpp xëy na waaye euh, waaw ñeent fukk yeex ñaar euh, ànd nañ ci ne dañu war a di saytu suñu bopp di xool suñu bopp di nit suñu doxalinu réew ak suñu yorinu réew te loolu jumtukaay la boo xam ne Union africaine mbootaayu Euh, xeetu euh, Afrique yëpp ñoo ci bokk du ñëpp nag ñoo bokk ci euh, li xam ne mooy jumtukaay bi maanaam nangu di saytu di seetlu te ñëpp teg ci seen bët ne li ñuy yore réew mi yorin wu baax la yorin wu sell la yorin la wu am njariñ ci ci askan wi lii nag li tax mu am solo mooy ñikk ko séq te di doxal mbirum yorinu réew ci réew mi nañ saytu bu baax li fi defu ñu seet la ca baax ñu téye ko xool nañ koy dollee nañ koy yokkee nañ koy dëgëralee seet tamit lii xam ne njuumte la wala doyadi la wala des nuñ koy yokkee ngir rek gën a dëgëral yorinu réew wu sell wu baax buy jëriñ askan wi loolu mooy njariñu waxtaan wi mën a am naa yaakaar ne euh, waxtaan wax liggéey bu baax lay doon ndax lii ndoortale li rek bu ñu demee ñoom nañ xam ne ñuy liggéeyee fa ñu war a dem fu ne ci réew mi jële fa ay jëfin ay doxalin buñ ko boolee borom xam-xam yi xam ne ñoom lañu àndal teg ci seen bët ñoom it te li ci gën a am solo te mu neex a wax mu baax a wax mooy mbir mi dafa ubbeeku du ñoom rek direction bi ci seen biir di ndaw nguur gi waaye dafa ubbeeku ci waa société civile ay partenaires ay privé ak yeneen i euh, euh, euh, bërëb ci réew mi bu ko defee la ñuy wax dafa am fu ñu koy teg fu wóor la ñuy jàpp dafa am fu ñu koy teg fu leer te ñu ànd ci ay ay borom xam-xam yoo xam ne ñoom seen liggéey yëpp mooy bu ñuy gëstu la am solo ci la ñuy gëstu mooy teg baaraam ci lu ñu wax lu ne. adduna nag euh, dafa tëddee noo xam ne doomu aadama du mat moo tax def boo jëfee jëf bi lu mu baax baax foog mu am lu des foog mu am lu doyee di ndax nit matul bu ko defee ñoom bu ñu liggéeyee liggéey boobu. ba pare nañ ko mën a jébbal euh, ki xam ne mooy jiitu réew mi te defoon nañ ko 2018 je crois 2017 2018 euh, ñu publier ko maanaam siiwal ko siiwal na réewu Sénégal ci diggante ak yeneen réewu Afrique yi euh, bu ñu seetloo jël seetu bi xam ne mooy seetu bu ñëpp a bokka génn nañ ci ne doxalinu Sénégal ci yorinum réew ci lu sell lu rafet luy baaxal askan wi nii la tëddee lii lañ ci gis lu baax te ñu war ko gën a dëgëral gën ko baaxal lii lañ ci gis lu xam ne doyadi na wala loo xam ne desadi na ñu war ko gën a euh, mottali lii daal mooy njariñu li ñuy def nag euh, ma ci gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jaajëfal di ñaan directeur Kanté ak ñu mu àndal ñëpp wax dëgg yàlla liggéey bi xam ne defoon nañ ko ba mu am njariñ ñu defaat ko mu gën a amat njariñ ñu wane ko nag waaw loolu bu amee xëy na sax forom bii ñëw bi ñu bëgg a organiser mooy jataay bu yaatu ci wàll yooyu dina gën a am dugtu waaw parce que ñun ñu xam dëgg-dëgg fa ñu jógee ak fa ñu tollu fi ñu toll nii la ca baax la ca dëgër la ca wér lan moo ci doy di lan la ñu war a euh, jubbanti lépp ngir baaxal yorinu askan wi yorunu réew yorinu réew buy jariñ askan wi yorinu réew bu sell waaw wax naa ko bu baax bu rafet lii daal mooy solo su waxtaan yu tey maa ngi leen di gërëm di leen sant. Hmm, waaw tur bi moom alaaji moom